as asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 29 octobre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci mbir mi nga xam ne ni daal fi mu nekk nii moom la ministre Matar Ba nekk ci dëkk bi maanaam daal ñi muy dalal ak itam xelaat ya ñu am ngir lamb ji gën a mën a jëm ca kanam mel ni ki nag bu bëggee dégg-dégg daal maanaam mbirum retraitement session ba nga xam ne maanaam téewaat lamb ja doxal ko ci boo xam ne daal ay innovation wala ay yeesal daal fas na ca yéenee am mel ni ki nag Matar ba fi mu nekk nii daal yëglikaay ba xëy na xamal ñu moom sunu làmb ne daal li am ba des daal daa mel ni mbir yi nag moom teg nañu ko moo tax nag yëglikaay ba wan ñu ñetti photo yu mbër yoo xam ne nii daa mel ni mbégte la ñu gis ca seeni muy le roi des arènes Modou Lo ex roi des arènes ba Eumeu Sène ak beneen ex roi des boo xam ne nii moom mooy Balla Gaye numéro 2 ñett ñooñu daal la ñu xëy tey fësalal ñu ko mel nekki nag mbir yooyu ba tey ñu nga ca ndax nag yëglikaay bi ne daal li am daal li li bëreeg frappe ak olympique ba ci lutte traditionnelle bi daal daa mel ni ki seen i président copte nañ leen ñu ko war a jiite war ñu ñetti foto muy Mohamed Ndaw Tyson yi kii Yékini ak ka nga xam ne moo di Moustapha Guèye keneen leneen loo xam ne nii tamit yëglikaay bi ñëw na ca mel ni kii nag ba tey dalal ba nga xam ne nii likaay bi ne na CNG mu ngi koy continuer wala boog Matar Ba mu ngi ko continuer di ko dalal nit ña démb nag ni ña mu dalaloon bokk na ca ki nga xam ne nii moo di Abdoulaye Dembélé bu sunu lamb ak Iba sunu lamb mel ni ki nag ministre ba daal rafetlu na bu baax a baax a baax liggéey ba nga xam ne nii moom la waa sunu làmb nekk di ko liggéey ci làmb ji depuis ñu taxawee ba tey yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni ki noonu mel ni ki nag dalal ya moom mu ngay continuer ndax yëglikaay bi xëy na ñu xamal ne daal ki nga xam ne nii moo di Lamine Samba moom tamit dalal nañ ko ak Malick Thiandoum waaye duñ ca yem nga xam ne nii moo di Bekaay Mbaye tamit tey ji daa mel ni moom fas nañ ko yéene dalal fa nga xam ne mooy ca ministère des sports mel ni ki daal fi mu nekk nii kon Matar Ba moom la mu fas yéene daal wala la mu nar mu nga ca maanaam waxtaan ak ñépp ba daal bu ëllëgee bu defee kenn du ne ko la nga def waroo koon koo def wala lii la wala la la mel ni ki daal coow la fi mu nekk wala boog mbir mooma fi mu nekk nii mu nga continuer di dox mel ni ki nag équipe ba nga xam ne nii daal ñoo fi nekkoon jiite làmb ji muy docteur Alioune Sarr bi xëy na tey xamal ñu ne daal benn fête boo xam ne a boo xam ne daal ñu ngi ko fas yéene def nag lañ ko nar a duppee nag maanaam la yëglikaay bi jàpp ne boo dana am jëmale ci ki nga xam ne nii moom moo di docteur Alioune Sarr yëglikaay bii sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko keneen keneen koo xam ne ni moom def na contribution ci ka nga xam moo di Alioune moom tamit xëy na tey daal andil ñu contribution ba ka ko def nag moom mooy saa combi Diop moom daal la mu xëy xam ne daal maanaam Alioune Sarr la tudde naanam jàppal un missionnaire républicain et serein maanaam nit la koo xam ne daal république bi moom doxal na ca la nga xam ne moom lañ ko dénk waaye itam yema la ñeta boole na ci ak dal dal goo xam ne daal seetlu nañ ko ci ki nga xam ne nii moom moo di docteur Alioune Sarr buñ fa jógee nag dañuy ñëw ci ba tey làmb ji rek wala nu continuer sax ca la ñuy des ndax ka nga xam ne nii nag di Issa Pouye mu nga xëy tey sampal ndën ka nga xam ne moo di Gris Bordeaux nee na daal man pare naa ngir bëri ak Gris Bordeaux daal nee na daw ma ci saala yaay ndeer Gris Bordeaux daal su bëggee na ñëw ñu defante ba mu saf-saf comme Forza sama diggante ak moom dox nañ ko ba ma nangu woon man Gaston nga ko bëggoon ñu xëy xëy déggatuñ ca dara mel ni kon dafa jàpp ne sax moom Issa Pouye Forza moom bàqaar la te daf maa ragal moom Issa Pouye loolu la xëy tey xamle moo jiite Gris ba nga xam ne ni moom la Gris Bordeaux nekk a muy directeur technique ba di Tafa Gueye yëglikaay bi xëy na tey seq ak moom waxtaan ka ko def nag mooy Abdoulaye Diagne Tafa Gueye daal wax na fa lu baree baree bari ñëw na ci li nga xam ne ni moom moo di mbirum CNG bi ak ña ko war a jiite ak itam jikko yi ñu war a yore ak taxawaay ba nga xam ne ni jàpp na ne ñooña war nañ koo am waaye Tafa Gueye tamit ñëw na ci leneen loo xam ne ni wax na ca muy lu jëm ci li nga xam ne ni moom moo di daal jàppale na moom ci carrière am mësta négocier boppam la nga xam ne ni moom moo di combat mbirum Gris Bordeaux tamit wax na ca ne ki nga xam ne ni daal moo di Gris Bordeaux ngir mu nekk tigre troisième tigre de Fass dafa wane ay preuve am moo ko may mu nekk li nga xam ne nii moom moo di maanaam troisième tigre de Fass ka nga xam ne nii moom moo di Amadou Kati tamit Tafa Gueye na jamono yo ma cay toll mu di ma tàggat nekk sama entraîneur nee na retard moom maanaam tardé entraînement Tafa Gueye na ñemewu woon ko xalaat sax laa ko defuloon Gaston Mbengue itam ñëw ne daal boo demee ba ca biir daal boo ko xamee di nga xam ne xol bi moom dara dara nekku ci moom waxtaan wu yaatoo yaatu yëq na séq na ko ak yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey bu nu fa jógee nag dañuy dem fa nga xam ne moo di record record moom lam nu xëy xamal ka nga xam ne nii moo di xalifa sow ak ka nga xam ne moo di njaami jóob mel ni ki ñoom tamit daal li am ba des daal daa mel ni kon ñoom itam daal dalal leen des na ko def fa nga xam ne mooy kon ca ministère ba record tey moo xëy andil ñu lu mel ni ki noonu mel na ki yàgg maar daal fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg-dégg ministre ba mu ngay dalal ñëpp daa mel ni daal fi mu nekk nii la muy bañ ëllëg xanaa kon mooy tuuma wax na dëgg nag fa yow a yegg du man yegguma fa te lépp ñëpp lu nay ko ne da caa bokk kon bu waxtaane ko jotee da ngay woo ñëpp waxtaane kook ñëpp ngir ëllëg boo sampee yàgg njuumte ci kenn nit dadul dul wóor waaye bu ñu àndee juum wala nga wax ak ñëpp boo juumee bu ëllëgee du metti te di ngay neex a jubanti waaye bul fàtte nag tey la mawlidu nabi bésu yonent bi sallallahu alayhi sallam ñu koy màggal fépp ci àddina bi rawatina réew mi nu ne muy Sénégal kon yàgg maar daal li wax muy corona ak jàq-jàqi xol yeeg jaaxle yi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke guddi yàgg maar asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internetu Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen ziar tey nag ni ngeen ko xamee tey le jeudi octobre ñu leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko saaku si yéen di ñaan ci barke yonent bi wa sallam nga xam ne tey la ñuy xam nga yàlla defal ñu ci saxadatu daaray ni gën ñëw dëdd soraleeg seytaane ubbil ñu bunte xéewal yaa ngi dégg te itam jëm ñoo waaw maanaam daal ñaan yàlla daal lépp loo xam ne daal njàqaare la ci àddina bi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax nag xayru xalqillaahi nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam yàlla ne na ko lu ma bind yaa tax te itam ba ko yàllay tagg nag tagg ko ci ndey tagg ko ci baay ci jikko la ko tagg kon yàlla ñëpp di ñëpp na ko yàlla defal fa nu gudd ak wér wér-gi-yaram bàyyi kook njabootam xam nga mu dem ba njabootam di ko teral di ko ñaanal bépp doomu aadama jiga di soppe Babacar dëkk Réfan di soppe Mbayang di doomu Mbayang nekk ci fans bu Babacar maa ngi koy nuyu di nuyu waa fans bi yépp tey nag bu ñu ñëwee yëglikaay bi fi mu xëy tey génn daal maanaam atum mbër yi retraite gaag yu mel ni ki noonu ak session boo xam ne si mbir moo xam ne saytu gi daal da nekk saytu boo xam ne bu leer leer wala boog bu gën li fi newoon mu mel ni ki daal mbir yooyu ci la yëglikaay bi xëy tey loo xam ne daal ay procès yu mag a mag la ngir làmb ji mel nag loolu fi mu nekk nii daal moom la mataar ba teg bëtam moo tax muy wax ak ñëpp ubbil ñëpp buntam mu mel ni ki nag mbir moom bu ñu la ko dénkee yàggamaar ñu ne lii yow lañ yaa ci doy yow lañ ci doylu yow lañ ci maanaam yow la ñu doyloo ba jox la lii ndax li ko indi mooy république la ñu ne vote day am ñu voté tànn kenn ka ñu tànn mooy président de la république moom bañ ko tànnee nag jox ko ne ko doxalal moom mu tànn ña ko doy Matar Ba nag mu tànn ko jox ko sport bi muy doxal kon moom Matar Ba lañ ko dénk mu di ko doxal tamit am ñeneen ne war na leen dénkaat ñuy doxal kon defe xel war na koo mën a nangu woo nit waxtaan ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom nekk ci biir làmb ji parce que bu ñu xoolee waxtaan bi li ñu ci gën a neex mooy xeebu ci kenn parce que gis nañ ci bu jëkkoon dañu yaakaaroon rek xëy na ay ñoom Tyson ay yiki ay Yékini ak yeneen ak yeneen foofu lay yem waaye ñu gis ne mbir mi yaatal na ko ba dem sax ba ci ñi nga xam ne nii ñu ngi ci presse bi ba ñu gis suñu confrère suñu làmb yeeg ñoom ñëpp nañ leen ci muy loo xam ne ne suñ ci de continuer noonu waxtaane ko defe naa ne bi a def li fi li raw ñi fi nekkoon daan na solo kon grand projet yi nga wax ci biir moom nga xam ne nii moom la ñu yëglikaay di suñu làmb xëy xamal ba tey bu ñu continuer mu mel ni ki lutte olympique lutte avec seeni président tànn nañ leen ba pare daa mel ni copté nañ leen ah loolu nag li ñu ci mën a na a xam ne daal lépp yaa na nekk daal li nga xam ne ni moom mooy njariñu làmb ji parce que loolu mooy li nga xam ne moom moo am Issa Pouye gis nañ ko tey moom ne na Gris Bordeaux na ñëw ñu bëree moom it waaw wax na daal la mu bëgg parce que nee na foofu comme ak force doxoon nañ ko waaye la am solo mooy moom joxe na kàddoom waaye nag déggaatul xëy promoteur wala wala parce que jàpp na ne Forza sax da ragal waaw mu mel ni ki daal kon xëy moom Issa noonu la gisee waaye terewul nag dëkk nag nga xale boo xam ne bi mu ñëwee si lamb tamit vraiment ku ne gis na parcours bi mu def ci fulla ak fayda la teg kon defe naa daal bu fekkee déggoo ngir war a mën a bëre wala ñu bëggante ngir bëre defe naa promoteur bi war na mën a dox combat boobu boole leen muy Isa ak nga xam ne nii moom moo di Forza Gris Bordeaux itam moom lay neex rek bu ko neexee mën na geesu Isa Pouye mais sans débat waaye dama yaakaar loolu du yomb pour lijjanti ko Gris Bordeaux ak Isa Pouye moom ah néew ma du mën a nekk jamono ji waaye xam naa daal euh, lu lu méttee méttee taxawal lay doon ndax itam nag na mu demee moo tax leneen loo xam ne ni bu ñu ci ñëw mooy Tapha Gueye boo xam ne tey waxtaan mu yaatu seex na ko sunu làmb mel ni la mu ñëw na lool lool la mu waxtaane bokk na ci maanaam daal équipe bi war a ñëwaat ngir jiite làmb ji ak taxawaay ba mu war a am ak yu mel noonu wax na ci jamono yi muy nekk ci diggu carrière am itam nee na boobu ñi mu ko na tardé entraînement bi ko Kati Diop di entraîné xalaatu koon ko waaw te wax na dëgg ku bëgg dara da dangay def dara waaye léegi nag ah xale yi léegi yi moom defe naa ne ñoom dañuy teel def seen bopp champion te duñ fa yegg yeggaguñ ca parce que mbër mu ndaw boo toll ci war a lukkiku war a def performance defe naa yow waru di tardé entraînement war nga fonk bu baax a baax a baax la ngay def kon defe naa nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Gris Bordeaux jàpp ne dafa mérité troisième tigre de moo tax mu doon ko waaw loolu la Tapha Gueye wax moom nag bu ko waxee dañ naan waaw parce que moom mu nekkul deuxième tigre de Fass bi Gris Bordeaux mu yar ko ci ay tànkam ba mu nekk mbër mu mag defe naa kon bu xëyee ne moom mérité na tigre de a wax ñu ànd ca ndax nag ah yàgg maar mbonaat nee nañ moo la gën xam la ca déeg ba moom mooy niir ba ca ban ba loolu mooy waxit Tafa Gueye ak yoo xam ne daal ñëw na xam ne nii moom mooy Moustapha Gueye Gaston Mbengue itam jàpp na ne coowam bëri na rek waaye Tafa effectivement loolu mën nañ ko dëggal ndax li tax mooy suñu père Gaston saafonte nañu ak moom ay yooni yoon wax dëgg yàlla bu ngeen dee la wala ku nangam nangam non non non mais dafa fekk ne nag xëy na moom dinay wax ni bu waree wax dina wax li mu war wax et puis tamit maar noonu ngay melan ah. li ne ci yow da nga koy wax rek mu jeex yaa ngi dégg après nag par la du terewul nag sa jëflanteeg doomu aadama yi day rafet te defe naa loolu la gis ci moom suñu papa Gaston Mbengue di nga xam ne moom lañ dëkk mën ak saison yi di ñëw ñu tëgg lépp lépp nekk ay réussite nekk ndamu làmb ji record tamit xëy na tey ñëw ci dalal njàmm bu ñu dalal njàmm jub ak xalifa sow ñun tamit nekk ay membre bureau CNC eh, yaa ngi yaa ngi dégg kon defe naa loolu tamit ba tey mooy li ñu doon wax sansi matar yaatal mu noonu la mbir boo ko bokkee ñëpp rek da koy waxtaane yàgg maar nen bu ñu la ko joxee boo ko baxalee du bari ñu ca mën a lekk waaye boo ko defee mayonnaise nit da bëri ñu ca mën a lekk boo ko may ne ku ne bu yoree mburóom di nga ko diwal xëy na loolu ministre bi xam moo tax ku ne mu di la dalal waaw kon yaakaar naa daal eh, ñun moom la ñuy ñaan mooy réussite bi rek maar encore une fois rek di ñaanalaat jàmm Sénégal ci barke guddi yonent bi nga xam ne tey moom la ñuy fas yéene màggal ci réew mi yëpp wala si àddina bi yëpp ndax nag comme li ñuy wax rek yonent bi moom mooy lépp waaw mooy lépp kon daal ñu ngi ciy profité di nuy bépp doomu sénégalais waaye tamit di nuyu suñu mbokku chrétiens yi ndax ñu nag ñoom bokk réew mi te lépp rafet na kon defe naa mbir mi noonu la demee di ñaan sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre lu fi am ji ay njum-jum rek wala lu ngeen déggul normal lu mu ci mën a doon rek ngeen diñ ko jéggal xam ne ñu suñu tayef yàlla na jàmm yàgg sénégal yàgg maar